ñëpp ci xew-xew bi nga xam ne moo tax tey ñun ñëpp ñu daje ni nga ko waxee buuba suñu xarit la suñu patron la suñu soppe la Viviane tamit yàlla daf ñoo boole muy suñu xarit di suñu soppe mën naa ne tey suñu doom ak suñu jarbaat lañ doon maye yàlla yàlla barkeel sëy bi ci barke yonent bi macha allah ci loolu xam naa dafa tombe rek waaye taw moom barke la xéewal la mag ñi buñ ko masaan a gis dañuy sant yàlla nañu ñaan yàlla rek yàlla wàccee ndox mi ci jàmm ñi nga xam ne seen yaakaar ci bay lañ ko teg yàlla mottali leen seen yéene ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa euh, euh, euh, célébrité amaana sëy bi balaa ñu koy jàpp wala bu ñu jàppee date bi rek coow li day bari lool ñii dañuy nangu ñii duñu nangu waaye ñu ci ëpp dañuy bëgg a yàq lu waral loolu. loolu nag man message bi ma ciy lancé mooy ñaar ñiy sëy mhm. ñoo ci war a jàngat jàngat bu rëy sëy bu fekkee fasaguñ ko am rumeur yu commencé jug ñii ni sëy bi dana dem ñii ni du dem yéen a war a góorgóorlu parce que maam Seydil Hadji Malick daf ne woon nit dafa war a am yitte Alaaji Malick daf daan tagg bis bu nekk yitte ju kawe te yitte nag mi ngi tàmbalee ci ñi la yéene échec lu leen lum leen jaral pour mu échec na la ko jaral yow miy sëy pour nga sove sa mariage kon ñoom ñaar ñëpp li ñu leen di dénk mooy ñu jàppante ànd te yàlla rek tax geestu ñu nekk ci seen gannaaw di leen socc pour reetaan leen ñu fexe ba ñooñu duñu ree am na koo xam ne buy góor góorlu rek li ci gannaawam a tax ñoom ñu bokk ci ñooñu mariage bi bi mu jibee ay kàddu jib na ñun ñëpp ñu déggandoo ko kàddu yooyu encouragement la war a doon ci ñoom déedéet man miin naa yooyu xam nga man bokkuma ci yooyu man miin naa yooyu miin naa ay wax ak ay détails mais ñoom nañu lu téye seen sëy te yàlla rek tax ngir ñi nga xam ni nee nañ du dem nga ngallaawaay ñu bañ leen may ndam. macha loolu rek mooy xeex bi. waaye da nga génne benn challenge ci TikTok bi xale yëpp di ko topp. nga ne euh, ku la tooñ TFM nga daal di dem seen TV tontu ko mu nekk loo xam ne nag jamono gi yaa téye bës bi ci réew mi. <laughs> non bës bi bës <laughs> moom téyewu ko moom mais loolu loolu loolu loolu loolu jikko doomu aadama la rek xam nga man moom. jikko bi ma am yàllaa ma ko defal mu ma judduwaale ko mu nekk ci man ku nekk ak jikkoom xëy na loolu sama jikko la rek maa ni woon ku ma tooñ TFM ma dem seen TV fayu te yaa ngi ci ba léegi ba du ma ci jóg mukk <laughs> moo tax gars yi duñ ma tooñ parce que boo ma tooñee damay fay. Mm-hmm. ban ban ngay def euh, ci Zeyna parce ku ne xam na sa diggante ak euh, famille boobu alors Zeyna ku ne xam coow yu bari bari yi nga xamante euh, li ma xam daal mooy kuñ ko mën a jiiñ daal kii la yàlla na mu digganteem ak moom. Mm-hmm. te sëy bi am na fas nañ ko léegi ci tàkkusaan yàlla na ko yàlla barkeel. li ma xam ci moom xam ko ci yaayam mooy jigéen ju baax la. Mm-hmm. bërki démb bi ñuy dem umra moog yaayam Viviane daf ma téléphoné ni ma dama bëgg nga jàngal ma lépp loo xam ne lu ñu war a def la ca Makka ak ma diina ma jël ci sama temps ndax umra bi daf ma daf ma daf ma ñor daf ma intéressé te dama dem pour jaamu yàlla te noonu mu ko defee Makkatal Mukarram noonu la koy defee këram man damay dem këram foo ko fekk mi ngi lal si jaadaam mi ngi julli mi ngi jaamu yàlla nit ki nag acte yi muy def te mu jëm ci yàlla yooyu rek nga mën a seede ci moom parce que nit ku nekk lim la woon rek ngay gis mhm. boo gisee tuxkat bi bu yoree Marlboro am di tux mhm. am koo xam ni bu ko séenee day nëbbu Marlboro bi mhm. parce que bëgg koo wan ni moom day tux am koo xam ni bu ñëwee du du arrêté parce que nëbbu ko ni moom day tux mais am na koo xam ne bu ko séenee rek day nëbbu nit ki lim la wan rek nga mën a gis Viviane li ñu xam ci moom mooy mbaax Zeyna li ñu xam ci moom mooy mbaax borom këram nag miinuñu ko waaye moom itam dégg nañ ci moom ay seede yu baax yal na yàlla musal leen ci seetaan tey dañu gis yenn ci famille bi ah, ñu gis euh, Zeynabou Ndour euh, ñëw na fekk li nga xam ne moom mooy bisu doomam parce que wax nañu ni moom lañu ko tuddee mais am keneen koo xamante ne aussi dañ ko fi doon xaar muy Aby Ndour question ak famille bi mu mel lan moo est-ce que loolu man du ma mal placé wax ci parce que man Fall laa sant oustaz Modou Fall bu doon suñ famille daal ñoom Bintu Fall bu ñu ñëwul ak ñoom Mbaye Fall danaa mën a commentaire lan moo tax ñëwuñu mais comme ñoom nduureen la man duma ci mën a commentaire mm-hmm. problème personnel la askan wi ne nañ dafa feebar am ñii naan dafa tëdd ñii naan mënulatul boppam dara du samay kàddu waaye da nga jege tey lan ngay wax Sénégal biñ naan daa feebar maa ko njëkka woo ni ko dégg naa dangaa feebar mu ne ma ah moom yëgul ni moom daa feebar yëgul oustaz oustaz oustaz bàyyi ñu waay yow tamit. billaahi wallaahi tallaahi barke Serigne Babacar Sy. mi ma amul ku dul moom. Mhm. Pape Cheikh moo ni ma dégg naa moom daa feebar. senegal dafa nekk réew moo xam ne dafa neex. Mhm. boo absenté ñu ne da feebar. buñ toogee gisatuñ la lu yàgg monteel la ay jooy ne da dee. Mhm. man fii lañ ma tàggee sama benn soppe woo ma ca nga paru ay oustaz deewoo ma ne ko billaay deewu ma. ku neex a ngi noonu nag ki naan la alu nga ne ko alu nga ndax woo yooyu la waa réew mi war a bàyyi mhm. ku ñu gëj a gis ne dangaa feebar ba pare feebar yi ñuy di nit ñi maanaam lu mu leen di jëriñ mhm. diw daa feebar mais ku feebar nga dem faju ji mhm. dañoo gën ñu nekk hôpital fan nag ñu nekk euh, principal nañu bàyyi di tëral nit ñi te feebarunu mais lu ñëwul ak ni mu mel parce que Pape dafa dem congé nekk Amérique Pape ñaare bu demee congé weer ci ay tappale boppam mhm. dana fexe ba dolli ci quinze jours yuñ ko mayul bu ñëwee mënaloo ko dara mhm. bu waxee ba wër la ci yooyu la nekk mais dara jotu ko xam nga man lu ma la wax ci Pape Cheikh waroo koo weet dara jotu ko mais oustaz euh, lan moo tax nga ñeme coow parce que gis nañu tout le temps oustaz Modou Fall dafay wax kàddu yoo xamante ni ci coow rek lay dox maanaam daal ci sëy yi ngay dugg ci kër yi ngay dugg ñu koy partagé fépp lu tax oustaz ñeme ce que du suñu rab suñu famille <laughs> parce que tamit man ni ma nekk ay rab la de yaakaar naa. ah am naa benn sëriñ bu ñuy wax Cheikh Samb mi ngi may traité mi ngi may faj. yaakaar naa loolu donc moo waral coow li de. <laughs> moo waral saa soo waxee ñu partagé ko coow li bari ñu ñenn ñi oustaz daal moom yaakaar naa ne moom mooy soppay gaaruwaalekat yi. waaw mais mais xam nga xam nga Sénégal moom. man dama leen a maitrise mooy fexe naa ba awma complexe kenn. fexe naa it ba benn wax mënuma perturber. fexe naa ba am liberté. naa ba. lu ma def dañ naan yaa mën a nekk Sénégal enga maanaam loolu incarné naa ko man ba mën ko mooy complexé wu ma dara lu ma bëgg a wax wax ko mhm. lu ma war a jàngale dama koy xool na mu leeree ma jàngale ko après nag ku commentaire jàpp ni yow laay waxal wala yaa ko moom wala yooyu man du ma tardé ah, tudd Marième Faye Sall nee sa xarit sa doomu la sa diggante laa bëgg a wax sama yaay la sama xarit la sama soppe la li ma leen waxoon barki dem Marième Faye Sall may na la 20 millions dafa yaatu ñii ko wax <laughs> Sénégal nag dafa neex moom réew la moo xam ne moom dañuy yeewu di wax di nelaw di wax séq naa ak ñoom ak ay teraanga samay wëllëre lañ yàlla dogal ñu nekk fi ba jóge fi kóllëre googu nag dara du ko dindi ilaa yawmi diin jeex na. merci li ñu la aussi nga am xam-xam nekk ci réew mi ñu bëri ñu siiw dañu gis ne yaa ngi ko wax léegi Sénégal bu nit amee tur laataa xew ñu bëri dañuy génn léegi nag jikko boobu commencé di bëri moom laa wax sànq rek man de damay fexe ba bu buñ naan oustaz Modou Fall day naan sàngara yitte bi may am mooy danaa fexe ba bu may fa may naanee nit du ko du ko xam dafa am yoo xam ni saa yu ko nit ki déggee rek yeddeel la war a doon maanaam ay kàddu yi encouragement la war a doon ci moom man su may dugg ci dara Sénégal gépp ne du dem danaa reyante ba loola dem moom laa la wax sànq ma ni Serigne Cheikh Tidiane si day faral di wax ni yitte bu nit ñi am pour yàqal la la nga bëgg na nga am yitte ju ni toll ba réussir li nga bëgg loolu rek moom mooy wax ci. yàlla yàlla defal leen jàmm. macha allah.